bëree bare, lay bare, bëri te lay bare. bëri ndaanaan laa ñaari yoon waaw combat boobu yaakaar naa gars yi ñoo ko bëgg rek comprendre nga mais man dama jàpp ne lu jot rek yomboo comme que nag lit moo ci nekkoon di ci dox suñ borom tegoon ko ay nattu ba yàlla def na teggil na ko nattu yi xam nga ñu xaar rek ba ñu jógee màggal bu ñu jógee màggal na am xama proposition am ñu am leneen loo xamante ne lu gën a concret comprendre nga parce que ñaar ñooy bëree du ñett ñooy bëree comprendre nga Ama jot na avance mais Modou xam nga ba léegi jotagul comprendre nga mais daal nañu xaar rek incha allah li ñu xaar moo ëpp que li des xam bu yàlla defee jàmm xam naa ne bu ñu jógee màggal yi ba pare incha allah loolu yëpp dina dina dina dina leer quoi incha allah. booy Pikine nee nañu Pikine ragal dëkku fa. waa ragal dëkkul fenn. waaw xam nga nga nekk ragal du caakee ne fii nga dëkk wala fee nga dëkk wala nga am fit du caakee ne damaa juddoo fii wala fee laa juddoo nit dina juddoo almadi nga xamante ne dañ jàpp ne foofu moo gën a calme gën a gën a gën a gën a def lépp te du nekk ragal waaw moo terme yooyu ay ragal du kii lii wala lii wala tapet mooy dëkk fi loolu existé wul. jàpp nga nekk que li mu yàgg diir Modou dana ko jam li mu bëgg dana ko am. Wow, xam nga nit tamit buy wax day wax yàqinam rek comprendre nga man wax degi ala, ah, waxuma la amade, mais kenen kudut Ama la wax suy Modou amul dara luma ci tit man. ndax lan Demba lolou foko tek parce que xam nga nit xam nga amna yu beuri boy wax sax nit ki nga xamantene xam nga ko ngay wax ci performance am day mel ni koy jeter fleur man Ama manam xamantene ne rek de vie comprendre nga mais. mosuñu fréquentante ba may gis entraînement am xamaluma ko dara comprendre mais ki nga xamante ne xam naa ko xam li mu capable xam li mu mën kooku mooy loolu xam naa ne mooy loolu. waaye mooy sëll bu ndaw te doomi mbër la. waaw Ama mooy sëll bu ndaw Modou mooy lan xarañ loo. neex a faral di kon jeex na l'homme deux yee mooy Modou Lo. tey bu fekkoon ni que combat Ama Modou dafa yàqu. seen plan B lan lay doon. non plan B xam man nag nekkuma ci staff bi man dama nekk benn juste benn ndaw boo xamante ne lépp commencement fii la ma fekk ma ñu fas ne ànd ba fin comprendre que moom si lu mu mën a nekk rek man li ma mën mooy pousser ko jàppale ko ci li mu nekk mu jëm ndam mu am si ndam man man genre pion boobu la. Ama mën na daan Modou Lo. mais Ama mën na daan Modou wala mënul daan Modou nañ bàyyi ba loolu taxaw bu taxawee incha allahu rabi boobaa dinañ si sànni suñu kàddu mais man moom man man man. en âme et conscience su ma tëddee man xam naa ne Ama ah, mënul daan Modou Lo man. foo ko teg Demba. waaw mooy léegi loolu. mooy jàpp nga ne que sa mbër moo gën a coriace Modou nga parce que da nga ni Modou gën a xam donc xamuloo Ama donc mënuloo ko jugé. waaw moo moo tax ma ne la man jàpp naa ne mooy li ma jàpp. combat bu yàggee ni comme. non combat combat bi <laughs> gars rek mais combat boo jëlagul avance signé ko koy taxawul gars yi ñoo ko yàkkamti rek. kon Modou amagul avance signé gul. nekku nekkuñu accord principe la woon rek accord principe la mais nekkul dañu jël avance toog ci nen xam nga ba affaire di ñu mënuñ dem fenn. loolu la est ce que loolu baax na ci carrière mbër bu mel ni Modou Lo aussi. waaw mais des fois ngay da ngay def loo xamante ne sa nit nga koy defal te sa moom doo ko bañal dara quoi waaw ah, mais amul dara lu mu ko yàqal aussi tamit quoi. amaa Baldé jox leen ma Modou Lo jox leen ma Modou <laughs> dem ba ni bu ñu nekkoon ay paa bu ma ko dajee mu bu ma dajee moom mu yori bekk naa nangu bekk yi bëreeg moom dafa mel ni dafa yàgg wut Modou Lo. waaw ah, dëgg la tolluwaayam lay waxee chaque jour rek waaw <laughs> ah, mais dañuy wax góor moom balaa nga kaa nga ñam ko ñamanteeguñu moom li mu li mu li mu li li mu li mu gëm rek lay wax ni ah. jàppoo ne que Ama Baldé mën na ci Modou. ah luy loolu. mun na daara ci moom dañ koy bañ a may dara rek ah. mais ama instant daan Modou rek la gis. waaw mais tamit daan rek la gis. c'est moom moo wax rek moo fees le rek. tey bu doon challenge la ci kan la féete. ah ñun de suñu bopp lañ xam. waaw mais défi bi bu doon défi la entre Ama Baldé ak Modou Lo défi bi ki ko war a relever ci ñoom ñaar. ah moom mooy laajte boobu ba moom moo war a ñëw prouver mais lan la fi fekk. looloo jar laaj. ñu yónni yàgg rek. mais yeneen yéen ngi bëgg a bari ay bor Pikine de. ay du bor làmb la rek comme tey am ñi ñi nga xamante ne géejawaay dañuy jóge foofu di bëre waa fii côté parcelle lu bëri wala ñu bëre waa Pikine noonu la rek làmb la des fois xam nga parcelle ak parcelle mënuñu bëre parcelle tey jii seen adversaire mën a nekk face ñu pare face amaat fa beneen adversaire ñu pare géejawaay noonu làmb moo bindoo noonu rek. Balla Gaye 2 alias Cukkili bër ki mu def benn sortie bu def polémique. ne amul kuy takk ngemb ci làmb ji ñime ko la preuve waxoon na leen ko bi ngeen dajeeg moom ne woon na Modou yow yaa ma yëpp mais sa supporter yemuñu ma. amee sa supporter ma yëpp waaye yebuloo. amee Modou chaque jour li ñu koy mooy li tax mu ñàkk combat mooy topp Balla Gaye ci li muy indi <laughs> kon kay xam nga ne Modou moom mënoo taxaw ne dafa ragal bala seede yàlla Modou moom mën nga ko waxal lu ne <clears throat> des ragal Balla peut-être ñeneen lay waxal ñi nga xamante ne bu bëreeg ñoom day yàgg wala day kii mais pas waxul ak Modou de laaj leen ko bu baax waxul ak Modou de. mais Balla Gaye moom bokkutul seen ligne de mire bon làmb la rek ah on sait jamais waaw ah, kenn xamul li xew suba yàlla rek ko xam. kon yéen fayu ci Balla Gaye mu ngi seen xel un jour. non mais du fayu mais bu leen làmb boolee ñu war a mayanteewaat xaalis dañuy bëri ku nekk am loo yóbbu sa kër mais du fayu. mais ñaari jël xanaa boobaa 2-1 lay doon. Modou mën na bëriwaat ak Eumeu Sène on sait jamais loolu dara mën nga daal nit ñaari yoon te tax mënoo ko ah. mën nga daan ñaar ci tax na mënoo ko loolu moom Papis loolu ban genre ban genre wolof la. ban genre wolof la Modou am na ñu mu fi daan ñaari yoon. ñooñu moo leen mën. ñooñu boo laajoon dañ la naan Modou mënu leen. ngeen jàpp ko leen ni que ba tey ni que Balla Gaye leen man non su fekkoon ne damay jàpp loolu kay bi ma laajee Ama man la ñoo ko mën. waaw mais Ama mu musu leen musu leen daje donc mënoo taxaw ni mën geen ko wala mënu leen ko. waxee maanaam mooy góor ak góor koo xamante ne xam nga yóbbuloo ko dara xam nga yàlla moo dogal loolu rek mais mënoo ko déedéet mën nga ko bañ a mën mën nga ko mën mais mën nga ko bañ mën tamit on sait jamais. xam nga motloo Lo yàgg ak moom depuis nga nekkee gone. Ama Baldé gis nga ay combat am ci wàllu performance curiosité doole techniquement jàpp nga nekk Ama mën a dara ci Modou. man personnellement. non non sax ah. waaw ah, parce que xam naa Modou bu baax Ama xam naa ci moom tuuti rek waaw. te boo doon différence la mooy seen différence. du ma fi toog nag di wax am na loom dangay bàyyi gars yi ñu kii mais bon. moo doo ko ëpp doole. mën na ko bañ ëpp doole parce que ñu moo ko dàq bëre. ci man. sëlu bu ndaw ngay wax de Papis. si man si man. ci yow moo doo ko dàq bëre. waaw ah. ku dàq xeex. si man Moodu. Moodu moo dàq xeex. si man waaw. mais kon yow Papis bu dee nii nga ko jàngatee nii kon xëy na Ama Baldé mënul am dara ci Modou Lô. non ma loolu mais da ma laaj man da ma laaj ma wax la. xam nga tey jii ku ci nekk am nga droit wax ne kii ki nga nekkal nga xam ko buñ la laajee ci moom sañ nga wax ci moom mën na lii mën na lii mën na lii mais man li ma seetaan d'après li ma seetaan li ma gis ah xam naa ko bu baax a baax xam nga mbiru làmb xam naa ko nii xam naa nice borom baax la mais bon ci cadre sport ci côté yi nga ma laaj ni <laughs> wax dëgg yàlla muuroo ko ko si mën wax dëgg yàlla mais combat bu nara a mystique la aussi parce que Ama Baldé bokk na ci mbir yi gën a mystique ci làmb ji te yorul ngembal gone. waaw ah, Ama Baldé du gone nekkul xale ba yor ngembu xale ñi ko entouré rek amul xale ay kilifa rek ñoo ko entouré xam nga moom rek fi muy demal boppam waxatuma laa ñoo ñëpp xam nga macha allah mais tamit ku ci nekk moom <clears throat> na nga na nga gëm li nga yor rek. ba bis ba incha allah. yéen jekk ngeen ci mystique wala jugagu leen contre Ama Baldé jugagu leen defagu leen ci dara un non non moom affaire musique moom après quoi fi ñu moom nañ bàyyi ba affaire taxaw combat bi ku ci jàpp ci musique entraîné woo boo ñëwee sa morom dina la def loo xamante ne di boo tëddee di nga bëgg nelaw mu tëla. du combat mystique. bon mystique mënul ñàkk mais tuuti la ci combat bi tuuti ku ci entraîné wul ba def ñaabul <laughs> boo ñëwee di nga am la bett de. Papis mystiquement euh, daan nga toog ba ñu suba la combat Modou ab sëriñ combat bi suba da ngeen koy ñàkk wala di ngeen ci am ndam. du buñ ne suba la sax mës na ma ma daal koo xamante ne xam nga wóolu naa ko mu ne moon combat bi gisaguma léegi léegi li bon mais man sama man li may demee chaque jour loolu dama koy def mystique parce que lu ma warul ma war a def la mais man li nekk sama bopp mooy saa yu Modou entraîné ba nekk ci au I don't care pour man lu ne ci kanamam rek. mës nañ leen ko wax ngeen daan. mës non wax nañ ma ko mais mañee ñëw ba si biir làmb ji ma ñëw ba si biir làmb ji xam nga la ma woowaat ma décroché mu ne ma affaire yi changé na léegi léegi nii lay demee. te noonu la yàlla xam na loolu. kon mystique am na ci làmb. am na am ñoom yàlla daf may dañuy gis. loolu am na daal defagu leen ci Ama Baldé dara demagu leen ci seetloogu leen ko kiiwu leen ci dara quoi maanaam amul problème quoi ba mu mu taxaw. mais mënoo nekk ci koo xamante ne signé ko ak moom contrat accord rek nga joxe joxe guñ la xaalis joxe guñ la. dara booy bi dugal ngeen ko ci ruq bu yàgg. non ba ruq lañ koy dugal nee naa affaire du foofu de entraîné na ba def ñàbb la ñëw taxaw ñu bëre ñaari góor yàlla lañ ñaari ñaari waxambaane. nga mën nañ bëri combat bu metti ci wàllu xeex. non xeex bi gëw ma